askan wi lépp askan wi lépp leer na seen seen bopp yéen daal li ngeen bëgg du ngeen ko am fii nee naa la duma ci àddu parce que ñun weesu nañu foofu dafa am stratégie yoo xam ne ci wàllu politique ak wàllu communication ñun kenn dañu ko jàngal mais nit bu nekk ci trajectoire ak lancé nga ne xaaral ma divertir ko ba nga xam ne dootul ta euh, moom mi sëñ Abdou ak sëñ Cheikh dañoo bokk assemblée nationale ne fa euh, fa la ñu xamante daanaka donc suñu xamanteeg léegi gën saa gudd at la ak lu ci tegu waaye euh, ñu ràññee teel a ràññee ci ñoom taxawaay bu rafet ci assemblée nationale euh, ñu mat liñ leen yóbbu foofu mooy ay député dëgg laa fa gis man ci ni ñuy exercer seen mandat de député. taxal fa askan wi mu jaral leen xeex bu ñu fa xeex rek assemblée nationale ndax yéen ñëpp gis ngeen assemblée ni muy doxee te defe naa xeex bu ñu fa xeex ñoom ñoo ciy jiitu kon euh, ñu wonewaat tamit loolu ci forme bi la waaye ñu wonewaat ci biir ci fond bi euh, benn parlu ak benn maîtrise ci dossier. suñu ñu nee préalable mooy balaa ngay nangu kër gi il faut nga indemniser nit ki. suñu nee juste mooy indemnisation bi war na may nit ki mu mun a am kër gu mel ni boobu nga nangu ci moom wala bu ko gën sax. Casamance ba Fuuta nga jaare ko Bawol jaare ko Saalum jaare ko feneen ak feneen foo dem même problème yi nga fay fekk lu muy tekki nag mooy échec am na parce que euh, li population yi doon xaar ak yaakaar bi ñu amoon ci amélioration ci seen condition de vie balaa dara. parce que li olof naan balaa nga naan daam ne fa nit ñi seen condition de vie faju bu baax seeni doom jàng ñu mun a am liggéey ak yu mel noonu mooy woon seen première priorité waaye première priorité du woon est-ce que defar nañ fi autorail bu jaar nangam ak est-ce que defar nañ ci yooyu lajj la ak juum ci priorité yi moo tax tey foo dem même jàmbat mi nga fay gis. suñuy tournée fu ñu dem ci Sénégal muy. ci àllu Saalum bi muy ci àllu Fuuta bi muy ci àllu Casamance bi defe naa li fay génn ci ay nit it teg ci koo xam ne joxe woo fa fukki dërëm remplir ay kaar ah du ma ne amul politiciens yu ko am fii de yu ko amul de waaye si yëpp ñu def débat suñuy programme ñu ñu ñu croiser ko sénégalais yi xam kan moo mën waaye nag. ay fu muy jaar ak fu muy toog lu mu lekk moom <laughs> eh, eh, eh, du sama du sama yitte. jërëjëf jërëjëf waaw li ngeen bëgg am ngeen ko. waaw macha allah. <laughs> nee na jëriñ yaa ngi doon Fatal waaw da nga kii numéro bi waaw.